mbokk internet yi nga xam ne noonu topp si Wadduha TV seen mbokk Alxaaji Modou Cissé bu Wadduha point org moo leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal tey sàkku seen ñaan fas yéene partage ak yéen kay fiyaat yoo xam ne macha allah dinay dimbale doomu aadama rawatina koo xam ne dafa yëg ne njabar mu ngi si moom bu ne njabar nag mooy lépp loo xam ne sànni nan ko doomu aadama ak xeetu njabar bu mu mën a doon moo xam macha allah lay tàng la la ñuy tàngal la moo xam la ni sëf fu diis la moo xam la ni naawtal la moo xamit la ñuy la yooyu yëpp ay xeetu liggéey la yoo xam ne macha allah jar na di muslo te ni ma koy waxee rek doonu nekk ci jamono joo xam ne ku mucc rek di nga àgg si kàttanu yàlla nan yàgg di koy waxee rek nuy ñaan yàlla gën a fóot xol yi ñuy gën a yéenante jàmm ku am ittee def safaan si doomu aadama itte jooju nga jéem koy def ci lu lay yokk ci lu lay yokk ci ñaar benn mooy lu lay yokkal ay xéewal ci sa dund ak lu lay yokkal yiw ëllëg barsàq ndax na ni yàgg di koy wax rek àddina saxul tey dund loo xam ne koo xam ne nanu koy waxe boo dundee ñeent fukki at soo fi naree yàgg danaan xaajal nga ndax yàgg naa di wax ne téeméer boroom téeméeri at saa yu fi jóge ay moroomam duñu ko gunge du ay moroomam noo koy suuli si misaal bu leen fa fekkee duñu ko tal mooy duñu koy tal mooy àdduna dëddu na leen ba kàttan dem na xel dem na man-man dem na kon ma ne dig doomu man nga ne jamono bu gàtt la fa tabaraka la jamono jooju nag daf si war a profité bu fekkoon lunu nu mën a tuddee bonus la mu sarse si téléphone ak crédit bu bëree bëri bëri ngir ay bonusam du gaaw a jeex ba bu ëllëgee su demee bu mënul la nga xam ne doon na koy def si jamono ja nga xam ne moom la amee kattan loola day doon yiw boo xam ne daf koy gunge giiru dundam ma yàgg di wax ne def safaan moom su antoo yiw newu si bu antuwul it wax yas willaah yiw nekku si ndax lu mu yàgg-yàgg-yàgg bala nga fi bàyyi ko da gis résultat ba fii si àdduna te it boo demee jàkkaarloog sa boroom wax yas willaah mën nay doy ndax suñ boroom lu mu bind rek doomu aadama la ci gën a teral doomu aadama la ci gën a màggal kon kuy bëgg xaritoog njaboot ku bëgg xaritoog njaboot dinaa koy wax xel ba boo demee si kër nga xaritoog caat ma ak ay magam fa tabaarakala bu ko defee borom kër ga dana la yaatal dana la bëgg dana la ubbil xéewalam yépp noonu it la niki borom bi soo bëggee toujours mu lay defali xéewal di la bettee ki surprise fa tabaarakala di gën a leeral sa yoon di gën a euh, di la yokkal sutura faawoot ngay am yërmande si jaamam yi faawoot ngay am yërmande ci mbindeefu yàlla yi defe naa ñu bari dinañ di dégg man kaana lillaahi kaana laahu lahu ñi nga xam ne ñëpp yàlla day dogal nuy tàllal seen loxo nuy faral di koy wax mooy ku nekkal yàlla rek yàlla nekkal la ni ngay nekkale yàlla nag mooy jaamam yi nga xam ne mbindeef yi nga xam ne nooy représenté borom bi si kaw suuf koo gis rek nga gis ci sa bopp nga yéene ku la nga yéene sa bopp damay yàgg di ko waxee rek liggéey toujours bu ko ni nattee si boppam defe naa ne bu dee liggéey ba mënula ñàkk it coton lay doon ndax nu liggéey nit moom mënula ñàkk si moo du Cissé kat dafa yore soxna bëgg na jubóog soxnaam moo def ñaan guy tax mook soxnaam nuy juboo liggéey na soxna si waaye sànniwu ko xeer coton la ko sànni si misaal mooy macha allah loolu lu mu bari bari bari yiw lay doon nax ànd dana koy war a ñàkk nu ma yàgg di koy waxee sëy yu baree bare ngi yàqu mën nga ne quatre-vingt-quinze pour cent yi yépp ak njabarako a yàq si dëddale macha allah si def loo xam ne macha allah da ngay fat bunt ba nga xam ne fala la cofeel fa la xemmeem sentiment doon génnee moo xam si kóor gi wala ko jigéen ki foofa ngay tàggatee seytaane mu dem fatt foofa ba nga xam ne macha allah mawadda ak raxma ba nekkoon si way ànd yooyu day mujj nekk alxadaawa wal baxdaa te mooy yëg-yëg day wàññiku yéene day wàññiku fa tabarakala eh, sentiment day wàññiku yooyu yëpp njabar dina koy mooy tax ne ni yàgg di koy waxe rek ne nan di ñàkk sëy yi na may yàgg di ko waxee nan dëkkuwaay yi <clears throat> yàgg di koy waxe barab bu nit di yëngatu nga jéem koy ñàkk ba nga xam ne fa tabarakallah kenn du la fa booleeg saytaane kenn du fa sànni saytaane mu nekk si sa mu accaparé sa entreprise ba nga xam ne macha allah bien yi doon am yépp soo nee suba war na am contrat cent million yàlla may na sayatin yi nuy xam lu baree baree bari sa ñëw dana mujj dana dem bare ka nga xam ne moom nga war a seppal contrat boobu ba lay nekk xéewal la sa war na doon xéewal day mujj dootu la yooyu yëpp ay xeetu njabar dana koy waral fa tabarakallah dinay um nit ba nga xam ne lu muy yaakaar rek da ngay dégg ñaar ñu koy wax ba ma naan leen loolu ëpp na di wax lu may yaakaar rek day tas bul ko bu ko kenn di valider boppam amaano su mënula ñàkkit waxal samay yaakaar baraana lu muy tas wala ñaare suma ma yaakaar yenn dinay faral di tas waaye lu may yaakaar rek day tas dem ba dëggal loolu loolu ëpp nuy def baaxul toujours rek damay wax na nan jaam di am yaakaar saa yu xëyee rek ne tey tey la lépp di defaru semaine bu nekk mu ne semaine bi la lépp di defaru weer bu mu dugg rek ne weer bi sama weer la danaa si àgg fa mu bëgg àgg fa tabarakalaa bañ ji yaafuus di gën a yaakaar yàlla tey fa tabarakalaa di defaru defaru gu mooy lan di sangat yaramam ba lépp lu sa si safaan loola deñ wallahi yaram dana tilim tilim goo xam ne day mel ni kii fa tabarakallah boo amoon foo fonk foo war a dem dana am yéere nu muy tilimee ku la ko jox ne la yóbbu fali da nga naan lii xalaatuma ko tooga ma gënal misaal rek si ne yaram danay tilimee noonu it ba lépp luy xéewal fa tabarakallah mën na koy tiim waaye du wàcc tabarakallah mooy waral yenn saa yi nga gis nit bu debale comme jàllee rek xéewal yépp ñëwandoonu macha allah moy tax di day bax ngay faral di saraxe surtout nga xam sa sarax day bax ngay far di sangatu di def ay toccal ba nga xamné lépp lépp lépp lépp lu jabar ci yow day tocc dana bax ngay tuddu yàlla lu bari fi tabarakalla lol day gëna toké sa yaram day gëna defar sa yaram ba nga xamné ma sha allah lu la nit sànn ci saytaane lola day muju primé dina ko wax ne dinañ di yónnee nit liggéey bo gisé liggéey duma jàpp nit di koy wax lu mën a nekk la waaye sa lamin nekke mooy tooke na yaramam tooke na yaramam ba liggéey mën na ñëw ba def face à face ak moom waaye du am fenn fu mu mën a jaar mooy waral nga gis ñu bari dinañ di tànn guddi foog na bu heure ba mu nelawee wala wala wala mais yooyu yëpp la day mel ni sa machine boo si programmé wala nga installé sa antivirus donte woo fay nga koy lu nu sa sànni fi tabarakallah du mën a agsi noonu lay demee ba toujours rek nit war na na ma koy waxee ne woyof bu mel ne xob ëpp naa def macha allah nga xam ne fu nga law ñëwee fu ko sob rek mën na lay yóbbu loolu du njàmbaar nit dafa war a am tuuti poids tabarakallah ba nga xam ne dinay mën di contrôler boppam dafa war a mel noo xam ne bii du doxee benn tànk dinaa koy wax nga xam ne du lépp loo bëgg rek da ko sañ a def ni ma koy waxe yàgg baraana lu muy am si góor ñi da ngay gis góor macha allah mu bëgg lool am soxna waaye tabarakallah ñàkkul xaw nañ ko tënk ba benn tànk lay doxe ba déggal ko sëy déggal ko ñaareelu sëy wala ñetteelu sëy mën nay jafe yooyu yëpp fa tabarakallah mën na doon ay xeet yi tënku tënku njabarit dinay dem ba yaramu doomu aadama fasu fasu goo xam ne wax yasubillah cër yëpp ay bàyyandiku fu tabarakallah lenn du si nangu njabar yi danay jaxase xel ba nga xam ne fu tabarakallah da ngay gaaw di fàtte dangay ngay absenté fu tabarakallah dangay ngay da ngay jaxasoo jaxasoo goo xam ne loo jàpp tey ay waxtu yu néew buñ la ko laajee dootoo ko mën a xam njabar it fa tabarakallah dinay jàpp doomu aadama ba nga xam ne duy tàggoo douleur bopp bu metti dëkk di metti biir boo xam ne dafay dëkk di metti fa tabarakallah wala tànk yoo xam ne dafay dëkk di metti yooyu yépp mën na nekk ay xeetu njabar njabar danay dem ba nga xam ne fa tabarakallah ki nga xam ne mu ngi nekk ak soxnaam te di si sàkku njaboot njabar mën nay tax lépp lu war lu fa war a nekk macha allah njabar ga bu deñut mën nay dem ba loolu day mujj tuuru moo xam si côté ko jigéen ki wala côté ko góor ki ñaar yëpp la nekk fi barakala yooyu yëpp it njabar it danay dem ba nga xam ne nit ki jóg dem si barab jóg këram dem dox ay itti mën na koy jafe toujours mën nay programme waaye su la mu programme yëpp day essuyé fi barakala yooyu yëpp mën na dinay nekk asbaabul sihr ku koy yëg ñaari sa bopp sa fit di yëngatu lu bari fa tabarakallah sa ngay jaxasoo lu bari comme ni ma ko waxee woon léegi fa tabarakallah yooyu yëpp xeetu dana di doon xeetu yu njabar ma baaxe woon ay boo xam ne mu ngi suratu ahzab wa radda llaahu llaziina kafaru bi xaysihim lam yanaalu xayran wa kafaa lahum minal qitaal wa kaana llaahu qawiyyan aziizan muy ay boo xam ne ko ku ko def riyaade ñeen fukki fan ak benn bele na nga sa yaram ba nga xam ne luy dana la tegg fi mu ngi day mel ni la sànni rek day sa ka nga xam ne la ko sànni amna na kayfiyaat bu ne wax xijaabu rasul moom it day toj lépp lépp lépp lépp luy njabar am na bu wax moom it day toj luy njabar nga bind fatihatul kitab aaye boo bind nga bind li ila fi quraysin ba mu jeex nga booleek ak xasu xay nga fay si juróom-ñaari xalu safara moom it day toj lépp lépp luy njabar nga bindi fa tabarakallah euh, alam tara fa faxal rabbuka bi ashabil fiil boo ko seetee juróom-ñetti miim mu ngi si juróom-ñeenti miim mu ngi si juróom-ñeenti tabarak moo nekk si alxuraan bu si nekk rek da koy ubbi dugal si biir benn tabarak soo paree nga ut juróom-ñeenti xeer tàngal xeer yi ba mu tàng nga fay ko si naan si juróom-ñeenti guux sangu si lépp luy njabar daf koy toj fa la suratu yaasin it boo ko bindee aaye boo bind nga bind wa in si lasina kafaru la yusliqunaka bi absarihim soo paree nga def ko saafara moom it di si sangu di si naan lépp luy njabar fa tabarakallah daf koy daf koy daf koy toj juróom-ñaari fallaxi juróom-ñaari naasi day toj njabar juróom-ñaari wasamay wa taarix sangu ak naan moom day toj njabar rawatina bu fekkee njabar goo xam ne dafa laalaale mbiru yaram ba nga xam ne sa yaram dafay wéré bi yii lu tuuti la ci ay kayfiyaat yoo xam ne bii day toj lépp lépp luy njabar te dinaa di wax ne jamono ji fa la danay baax lool ni niy fóotee yére bu nu ko solee ay semaine wala ay fan yenn saay day baax na koy fóote noonu yaram yi ba yaram yi set saaxiran ak baatin nuy naan ni ma koy waxee ba man di si alxuraanul ba lépp lu newoon ci biir yaram nga xamne le composé do mo adam muy muy yap ak sox ak yah lépp fa tabarak la muy sox ak yah ak deret lépp lu fa nekkon si lu si lu ñuul lola day day day faxas lola day randatu te yoy yef tabarak la ordonnance la yo xamne munu no ko amé fenn lu dul ci téré yàlla bi muy alquranul karim ñetti fatihatul kitab baxna nga di koy bind di koy naan boy naan naan ba man di fi tabarakallah moom it danay raxas lépp loo xam ne njabar la wala lu ñuul la lu nekk ci yaram soo koy bind benn bi danga koy góoral benn bi danga koy jigéenal benn bi ngundungaana mooy danga koy bind ma sadda nga bindaat koy sadda ko ak noxta yi nga bindaat ko bind boo xam ne yàqu kese yi kese ngay indi fi tabarakallah loolu baax na yenn saa nit di koy bind def ko ndox di naan ba màndi su naanee ba mandi la sa des mu sangoo ko fa tabarakalaa dinay raxas yaram dinay ar yaramit it si lépp loo xam ne di safaan la fa tabarakalaa juróom-ñaari tabat yada ak xaso xay boo amee néegu nguri moom it nga def ko si fa tabarakalaa moom it dinay toj njabar fa tabarakalaa yi nu leen wax daal yépp ay kayfiyaat la yoo xam ne lu si nit barkeloo da nga yëg ne sa yaram sexr mu ngi si macha allah am na lu la gàllankoor gàllankoor goo xam ne gàllankooru njabar la fa la yàlla dina la defal sutura ba loolu dinay dañ su dee danoo yàq sa place dama ko waxoon fa tabarakallah baax na nga bind si sa suufu tànk nga bind fa cent quatre mooy tolloog samadu nga bind ko se suufu tànk fa tabarakallah jàng yaa samadu cent quatre fois boo bindee samadu saat ba nga yaatal nga bind sa biir sa tur nga jàng yaa samadu cent quatre fois barab boobu bu fekkee dañ la fa yàqoon dañ la fa njabaram fa tabarakalaa njabar googu dina dina dina dina dañ fa tabarakalaa yi daal lu tuuti lool lool lool lool si yi nga xam ne képp koo xam ne da nga jàpp ne njabar mu ngi si boo ko jëfandikoo yàlla dina la defal sutura lu si jub nu ngi koy sante yàlla lu si safana nu ngi koy jéggalu wax ne yéene bi nii la rek yéene be ñi nga xam ne noonuy topp si wadu Wadduha TV toujours nuy am lu ñuy partagé ak ñoom fa tabarakalaa yoo xam ne dina leen mën a dimbali si seen diine loo xam ne biir fa tabarakalaa dina leen gën a yokkal ay xéwal ëllëg fa tabarakalaa seen mbokk la Alxaaji Modou si bu Wadduha point org wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah